وجاهد معه في الله واجتهد وهجر وله أو وخد نصر مولاي صلي وسلم دائما أبدا وعلى حبيبه خير الخلق كلهم أجمع أعظم الله له موجودا وأوجد جد معدوما سلة دواء من ليس من ليس تنحسر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبي خير الخلق كلهم لخ يا ربي أعظم لنا لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحسر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي xayril xalqi kulli loxo ca kaw bil mustafa al mujtaba xayril alami wa man jalalatan fadlan fi madhi suwaro mawlaaya salli wa sallim daiman abadan ala ذلك خير الخلق كلهم لخوا صليا يا إلهي وجزيا أبدا لخيت وصليا يا إلهي دعائي وجزيا أبدا وعنا محمدا المختار في القدم وسليا يا إلهي وجزيا أبدا أبدا عنا محمدا المختار في القدم Sëriñ Abdou maa ngi nuyu ñeenti del maa ngi nuyu deelug ñi fi dëkk di nuyu deelug ñi fi dikk di nuyu deelug ñiy dégg ak ñiy déglu kon bokkul ma ne léeg-léeg nit dina déglu fekk du dégg la ñuy wax mhm. léeg-léeg ngay wax ak nit mu ne xoj di la xool te la ngay wax dégg ko dëgg la yomb naa dal góor gu amagul dépasse suba mhm. waaw góor gu amagul dépasse suba léeg nga xool di wax ak moom mu ne xoj ju di la xool ay bët mhm. waaye la ngay wax du ko dégg yàlla na si yàlla musal amiin yaa nag la sa maam Cheikh Seydil Xaaji Maalik doon waxal tanabbahu mhm. anna nuural xatmi laylakumu qad xalla fi xiimatin min adharil qiyami mhm. baatu tanabbahu Abdul Aziz newul kuy nelaw ñu lay pëkk-pëkkal pour nga jug déedéet mooy ki toog te absenté sa maam Seydil Hadji Malick bëgg a joxe information te information ba muy joxe ñor na ko lool mu bëgg nag ñëpp tiiru attention ci li muy bëgg wax moo tax mu ne tën a bëxu bàyyi leen xel li may bëgg a wax an na anu muxbir la li xew ba xew nuural xat mi leer gi méttali leeru yonent yi xat ca dëgg-dëgg xàll wàcc na ñaara am ci xilaas am na la waaye am na la xalla mooy firi arrivé waaye jàlla mooy firi départ xatti dëgg-dëgg xalla wàcc na fii xiimatin ci xiima goo xam ne min atharil xiyam yi mooy gën jàllaa bi ñu ngi nuyu waa jotaay bi ala kulli xaalin mbir moom lu mu jabat jabat sooy nuyoo foog nga am yoo si jiital te alxuraan moo ñu jàngal ne wa aatul buyuta min abwaabiha kër daal boo ciy dugg da ngay jaar ci bunt ba kon ñu ngi ñuy directeur bi di ñaanal fa tabaarakallaahu Tektal TV yal na yàlla yóbbu ko fu kawe seen jort ba àdduna wërngël képp xam ko di nuyu waa jotaay bi yëpp di la nuyu yow Moulay Abdoul Aziz Hadj Demba du gudd. di nuyu caméraman yi. di nuyu ñii caméra. fa tabaarakallaahu nga xam ne si ñoom la yàlla jaarale. yàlla yombalal ñi war a seetaan lii tabaarakallaahu ñoom la yàlla dénk loole. ñu ngi leen di ñaanal ki yàlla defal leen kattan ak sutura ba ñu eggal suñu sago. kenn nañu fi tax a daje moom lañu war a waxtaane itam kooku kan la mm-hmm. wax naa la barki biig ne euh, soo bëggee xam rasulullahi xoolal xale bii doog a gane àdduna xale bii doog a gane àdduna xel mi day fasu mm-hmm. dafay mel ni tóontóor lu tojogul mm-hmm. su xale bi di màgg di am weer xel mi di fett ndànk-ndànk ba bu gisee gisee yaayam jooy mbaa mu digg baat yaayam xàmmee ko jooy su xale bi di màgg xel mi di fett ndànk-ndànk ba bëñ sax mën a yëy su xale bi di màgg xel mi fett ndànk-ndànk ba muy dox di jéem a jàppando su xale bi di màgg xel mi fett ndànk-ndànk ba muy doxal boppam dootul jàppandoo di far gis nga cër boobu bokk si jëmm ji àndandoo ak yeneen cër ya départandoo ak ñoom te ba muy laat dox moom cër boobu si jëmm ji dara doxagul mooy rasulullahi mooy aynu rahmati rabbaniyati moo yaaxuutatil mutaxaqiqatil xaitati bi markazil fuhi wal maani musafaaya nuuril akwaanil mutakawinati aadami saaxibil xaqi rabbaani mooy albarqil astaay bi mudunil arbaxil maaliati li kulli mutaaridin nag moo xam borom bu xuule wala awaani ci weeram la ñu ne. sallallahu alayhi wa sallam. wax nga ko sànq. wa aamun. Mhm. summa shahrun summa yawmun. Mhm. at ma mbégte la. àdduna mbégte ñu ci weer waaye bis bi mu gënee àdduna itam mbégte la moom rasulullahi sallallahu waaye dafa am ku ñu yàlla baaxee koo xam ne lépp yi rasulullahi moo ñu ko wax hmm. xam nga mooy kan mooy kan cheikhu suyuuqi hmm. cheikh sayid El Hadji Malick dafa am lu mu wax hmm. wax joo xam ne dafa yéem lool borom xam-xam yi ndax dafa mel ni dafa fëgg dëndam xam nga mooy lan yaa qaa'isal bahri lil asdaafi andiya hmm. andiya jooju moo yi nag ci nopp boroom xam-xam yi yaa raisal bahri yow miy préparé pour dem Maroc mbaa nga war a dem Tunisie mbaa nga war a dem Égypte mbaa nga war a dem fu mu mën a doon ci dëkk araab yi sa maam ne ndem xami maamu rasul lay mbaa ay bàjjanam mbaa ay ndeyam mbaa moom ci boppam fu mu jaar ak kañ la ko yàlla ni naka la ko yàlla ni si ñan la ko yàlla yónni kañ la juddu kañ la raam keñ la dox kañ la wax kañ la génne àdduna fan la génne àdduna naka la génne àdduna dem loolu tax a jug sama am ne toogal ci waaw ma xamal la ko cheikh Seydi El dinaa la ko firi ñetti façon pirin yu bokkul andi waaw yaa xaayu yi la wax yow miy préparé dem àll ba ndem lil asda fee la tax a jug pour dem taxani matt mhm. matt moo xam ne danga war a ñëw taal reer mbaa nga taal añ sama am ne jaratu ko indi ya nekk na ci man asdafun aw bitéel boo xam ne bihaa duratun nekk na ca biir bitéel ba liquide bu ñu tuddee gaz boo xam ne ala moo gën a gaaw tàkk-tàkk te du am saxaar minal jale mi tukkee ci takku-takku matt ba bankal yaa gaay sal bax li la wax yow mi préparé dem bitig ba ndem lil asda fee la tax a jóg pour dem jëndi sondel ba mun nañoo taal loo leeralee sa kër samaam ne jaratu ko indi ya nekk na ci man asdaafun aw contact boo xam ne bi a duratun dañ ko balancé ak làmp lampe boo xam ne ala moo gën a leer tàkk tàkk minal jalami tukkee ci tàkku tàkku sonel ba xam nga lu xew dafa mel ni gars yi géej lañ jëm war a nappi samaam jug teel a jug dem biir géej la baax yëpp mu indi ñëw teg ci waawan gars yi préparé pour war a dem géej uti samaam Seydi Xaaji Maalik joor leen yaa gars yi sal baxri yéen ñiy préparé dem géej lay waxal yaa bi yaaw munaa daala ndem lil asdaafe leen tax a jug pour dem uti ay jën yu baax mbaa lu baax biir jën biir géej jaratu ko ñëw leen biir tiwaawan lu waay soxla ma jox la ko gratuitement mooy lu waaye bëgg xam ci yéent yàlla muhammad soo ñëwee tiwaawan ma xamal kan mooy rasulullah kooku nag la ñu topp di ko laaj kan mooy yéent yàlla muhammad sa maam seydil xaaji malik toppal la njol màkk wax na la kuy bàyyam abdoulaye ko jur ñëpp d'accord nañ ci aminata mooy yaayam ñëpp d'accord nañ ci abdoulahi góor gu ñuy wax abdul mutalib ko jur waaye Abdul Aziz Abdul Mutalib tudd la Abdul Mutalib turam piir Cheybat alhamdi la tudd dafa am lu waral ñaari tur yi ma wax ko wala jaru ko. jar na ko. dafa am lu waral Abdul Mutalib am lu waral Cheybat alhamdi waaye turam piir Cheybat alhamdi la tudd bàyyam bi ko jur moom Cheybat alhamdi Hachim la tuddoon Hachim yàlla dafa dogal commerçant la woon. danaan jógee ko ardu xijaas ardu xijaas mooy makkatal mukarama daan nañ ko wax màkka daan nañ ko wax ardu xijaas daan nañ ko wax bakkata inna awala baytin wudia linnaasi lalladi bi bakkata wax naa la barki biig ne gaaraas bi yàlla njëkk a tabaxi koo àdduna bi mooy kaaba ga mooy la oto ba fu njëkk a lislaam la tudd marko oto ba al iman la bii firi ngëm yàlla numéro oto bi mooy al ihsaan ngëm yàlla bu ànd ak ihsaan amul njëriñ sëfër ba doon dawal oto bi mooy muhammadu rasulullahi waaye apprenti oto bi nag mooy jibril alayhi salaatu wasalaam oto bi màkka la waaye aljana la jëm xanaa war na am paas xam nga luy paas ba mooy la ilaha illa allahu muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi sëfër bi toogee ci volant bi apprenti bi wàcc commencé woote naan ay wa màkke ay wa màkke aljana client ba njëkk a dugg ci biir oto bi jigéen la mooy xadijatun bintu xuwaylidin xadijatun sakanat bil qalbi qailatan lam yusikal lahu في دارين الحاج مالك نينا على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام بذهبه في الأخ خديجة سكنت بالقلب خائلة لم يغزك الله في دار سيد الحاج مالك نينا على nabi wa alayhim ajmain salaama rabbina daiman aam bi tahdihi wa yalla summa bulu hawfin wa saadun sabayanga loxoy kaw sabayanga abubakar sabayanga ana mamudu Mamadou Saba yaa ngoog Mamadou Saba yaa xayrul anbiyaa Saba yaa ngoog yaango Mamadou Samba yaango Mamadou Samba yaango Mamadou Samba yaango Mamadou Samba xayla yaango Mamadou Samba yaango Samba yango loxo yi ci kaw saaba yango yaak nuuni yaak laamiya nabe ko waral Mamadou xaaba yango loxo yi Mamadou saaba ya xayrul ambiya saaba yango Mamadou saaba yango Mamadou saaba yango Mamadou saaba yango Mamadou saaba yango Khadijatul sakana bil قلبي خائلة لم يخزك الله في دار لا تبي خديجة اللوخ سكنت بالقلب قائلة قائلة لم يحذك الله في الدارين لا تكمي فهو بحنا ويعمنا بنين خديجة وعلي وابن حارسة ومن بدعوته عثمان ذو سلمي بلا لا جعنا كان مو نيك رسول الله وخلنا خديجة الله wa aliyin ku ca teg nga ne la aliyin la ku leen ñetteel nga ne ibnu harisa ñeenteel bi kan nga ne waman bi daawati Ousmane al salami boo yaakaare ne osmaan la daanu xam nga mooy kan ki propagande Ousmane ba dugal ko ci diina ji mooy Ababacar Saddiq Abdul Mutalib Cheybat alhamdu la tudd ma ne bàyyam bi ko jur Hachim la tuddoon Hachim da daan jógee ko Makka daan dem Medinatul Munawwara di jënd marchandise si wuñeeku kon li xew léegi nga jógee ko senegal dem Dubaï mbaa nga dem feneen jënd ay bagages ñëwaat jaay looloo xewoon Hachim yàlla dogal benn bis mu dem Medinatul Munawwara ci marché ba seen fa benn ndaw su rafet ku tudd Salma xool ndaw si nañu ma àndal ndaw si fu mu dëkk ñu ne ko bàyyi nga tàmbale ci dëkk bi mu ne kii de ku ma ko may ma séeg moom wax jooy dox di ba rot ci nopp bàyyi salma bàyyi salma ne kii am fitu bëgg sama doom ji ku ko xool war a xam ne famille bu rëy la bokk ñu may ko ko mu nekk ak moom mbir Medina nekk ak moom mbir Medina yàlla dogal am benn xeex bu métti bu am Medina te mun a war mu ne dëkk daal ko fa ne ñu may la fa soxna soo dee góor bu ñuy xeex nga war a suubu si xeex ba ci xeex ba ñu jam ko jam-jam bu méttee métti mu dem ba yëg na mu toll sukuraat bind benn lettre am na benn frère am bu tuddoon mu talib mu nga màkkatal mu bind lettre bi adressé ko Ferreira ni ko yëg naa ne maa ngi toll sukuraat waaye soxna si ñu ma mayoon am na lu ma ko bàyyee mooy bàyyee naa ko mu ngi woon lor maa ngi lay dénk xale bi bu gënee àdduna na ma ko surveiller dénk naa la ñu teg ci quelques jours mu génn àdduna moom Hachim jamonooy dox jamonooy dox ba yàlla dogal benn bis xale bi gane àdduna ba muy gane àdduna dafa indiwaale karaw lu weex tàll muy béy jaaw ñu tuddee ko xam Cheybatal Hamdi Cheybatal Hamdi mooy borom bi jaaw lu ñu sant li mooy xale boo xam ne dafa judd indiwale karaw lu weex amul karaw gu ñuul di mooy yàlla ba xëy am karaw gu weex dafa judd wale bi jaaw mooy Cheybatal Hamdi banqal sa baaraam kon dafa judd wale turam mhm. jamonoy dox jamonoy dox ba mu am 9 ans yu tegtal quelques mois mu musul teg bët baayam bu daw ba ñu ko battali am benn waaye bu ñu wax mu xiirata jugee ko maxtal mu xarama doon ñëw Medina ñëw ba dub ci dëkk bi seen ay xale di fo mhm. arab ak tubaab ñoo niroo am po dañuy tëb otoor mbaa ñu yëkkati lu diis waaye seen na xale bi ci biir xale yi muy euh, mutalib bi di chebatal xam di seen na ko ci biir xale yi nee na lu gars yi di jéem a yëkkati lu mu diis diis diis su gars yi yëkkatee duñ ko mën a yëkkati waaye moom bu ñëwee téye ak benn loxoom yëkkati mu jóg lu gars yi tàllal war ko tëb lu auteur bi kawe kawe bu ko xale yi mënta tëb moom bu ñëwee tëb ko facilement ne muy xool xale bi di ko xool ba yàgg mu woolu ko mu ñëw doom am ko gestu bàyyi man mu ne ko déedéet keneen ges gestu bàyyi man waxuma la mu ba ba ba Cheybatal Hamdi su bàyyi man mu ne ko yow laay waxal jëwal mu daw si ñëw doom da nga tudd papa man maa ngi tudd Cheybatal xam mhm. lu soo bàyyi tuddoon sama bàyyi de dégg naa ne Hachim la tuddoon waaye gisuma ko mu ne ko doon demal lu rek laa bëggoon xam ku la gis ak ku la xool xam na si bani Hachim nga bokk mu ne ko dee papa mu ne ko maa dem mën naa la laaj benn laaj aha keñ foo dëkk maa ngi dëkk Makkatal Mukarrama bàyyi xam nga sama frère Baye bu ñuy wax mu tëlit ah kañ xam naa ko ñooy bokk grand place. Mhm. ca Kaaba ga mën naa laa yóbbante ci moom ah kañ soo demee ne gis naa sa doomu frère ba Médinatoul Munawwara nee na bu ëllëgee yëmal xiyam boo dajeeg baayam lan la koy wax. ndax bi ma nekkee samay biiru yaay la ma sama baay bàttali ak moom te juddu naa ba am naa 9 ans musuma kaa teg bët kon bu ëllëgee yëmal xiyam bu dee sama baay lan la koy wax. wax ji frappé ko mhm. mu dillu Makkatal Mukarrama ci Kaaba ga wóolu mu tëlib mu mutalib ñëw ñu làqu ci kaaba mu ne ko attention soo moytuwul gàcce dara la dal gis naa sa doomu fereel ba Medina nee na bu ëllëgee yomal xiyaam boo dajeg bàyyam loo koy wax xale bii gis su bokkoon sama famille man fu mu mën a ne daa ko jële wax ji faraab bi mutalib mu dem këram ne soxnaam préparel ma dinaa tukki tukki bu sori mën naa del si comme mën naa bañ a del si ñu préparé ko ba muy dem samaam si di xaaji maa ngi ne mu nga wax fasu naaru góor bu weex tàll tàll utali nag médital mën a war a ñëw bu jub dëkk bi seen xale yi di foofu kon nañ doon fuyee démb ak barki démb xam nga xale boo xam ne Abdoul Aziz sa frère boo bokkal ndey ak baay moo ko jur mhm. donte mosuloo koo gis soo ko séenee si biir xale yi war ko mun a xàmmee rawat yéen a ko yor deretu yéen ci yàlla Muhammad sallallahu sa wasallam mu séen xale bi ci xale yi xàmmee ko woolu ko mu ges mu daw ñëw rek mu cax ko teg ko ci façon naaru góor ga daw ak moom ñu toog ba heure añ jot yaay yi génn salmaa ne xale yi an sama doom mhm. ba ñuy foo ëpp heure sàngam gis nañ benn góor bu war fasu naaru góor gu weex tàll bu rafet lool góor gu a ngi taaru lool moo ko ba mu ñëw mu teg ko fasu doog moom yaa ji yuuxu boobu jamono arab famille bu ne su amee naqar dafa am façon yuuxu boo xam ne bu ko yuuxoo famille ñooy daje si su dee bàndeexe kazalika yuuxu mbokkam daje si mu ne xaw ma woon dinaa am mbokk yu toll nii biir dëkk si biir dëkk bii di Medina ñuy jël sama doom di ko yóbbu tuddoo lañ ko yëg ngay def délégation topp góor gi deuxième lañ ko dab góor gi ges sa tànk fasu ndeyjoor bi bu ko tànk fasu càmmoñ ji fekk si mu ne cëpp wàcc wàccee chebatal xam ne takku ci dëndam ñu commencé tontuwante ay baat baat ya ñagas ñu commencé sànniwante ay fit waaye bi barakat yi leeru saydul wujudi wa alami di amul benn fett bu jógee ko si bàyya ñëw dal di ja waaye amul benn fett bu jógee ko si ndijaayam moom bàyyam bii dem si ndijaay ya sooy mu rey leen ba ñu des ñaar ñu delluwaat ne yaay ja dab nañu góor ga waaye mënuluñ ko dara lañ àndaloon yëpp rey nañ leen ba ñaar ñu ñoo si des ñu préparé beneen délégation ne dañ koy topp Cheikh Badar xam ne papa xam naa sama jikko ñoom yaay demee daañu del si ah xamal lu ñu def nañu bàyyi yoon bi te topp àll ñu bàyyi yoon bi topp àll bi waaye terewul leer ga ne woon ci jëga muy leeru yéen yàlla mu ngi naan fëy fëy fëy ci àll ba mel ni seetu ba tàllal si digg naaj Cheikh Badar xam ne ko papa xam nga looy def sama leer ji moo ñu na rafeeñal da ngay ut mor sa nga takk sama jëb yi ngi leer gi mun a wàññee waaye alaaji bu saaxu sa góor ga nee na leer ko toj kànkaala du mu ta wax wu leer ga nga naan fëy fëy fëy ci digg guddi gi mel ni seetu boo talal si digg naaj ñu topp leen délégation bi toppaat leen yaay jàng sa ñu ñëw ba jub leen door ko cheikh bi ta xam ne wàccee ma gaaw wàccee ko mu teen asamaanu juróom ñaar na ñaagam ñaagam sama si dexaaji maa ngi nee wax na waaye la ma wax ak maandu nee na kenn dégg ko moo tax binduñu ko ne ñaagam ñaagam ba mu yàgg ñuy seen benn niir niir boo xam ne yaay ji nee dafa ñëw tiim ñu ñun ba mu ñu tiinee ñu niir bi dégg naa ay jaas yuy dóorante waaye gisuma nit ma jaaxle chebat alhamdi bu dee da nga bëgg a fekk say mbokki bàyyi nga wax moom moo gën lii mu ne ko yaay boo ma bàyyi woon fekk samay mbokki bàyyi moo ma gënal yaay ji wuñee ko ak délégation ba ñu toppat àll bi ñëw ba jub màkk mu talib ne ko doom mu ne ko la bayk mu ne ko dëkk bii ñuy dugg dañoo yàgg noonu samay baay maa ngi lay bàyyiloo xel benn mbir xamoon nañ ne sa baay am na doom ci Médinatu Munawara soo duggee bur feeñal sa bopp soo duggee bu ñu la laajee yow yaay kan wax leen ne yow jaamu mutalib nga. jaamu mu dugg ci dëkk bi ñu xëy la laan demee xale yi naar yi wër ko nan ko man anta yow yaay kan mooy leen ana abdul mutalib man jaamu mutalib la kon lii moo waral turu abdul mutalib bi lële moo waral turu Cheybatal Hamde Cheybatal Hamde mooy turam pire waaye abdul mutalib sirnoo la. xoolal bi histoire bi passé nag am na benn histoire bu xew. Mm. histoire ba xew lan la mooy dañoo téye abdul mutalib ci boppam. Abdoulaye ci boppam am na ay doom moom Abdoul Moutalib Abdoulaye ñu téy ko war ko ñaanali soxla sa maam Seydi Hadji Malick na nag fii laay départ ak yéen tey ba histoire bi passé am na xew-xew bu xew ban xew-xew moo xew Seydi Hadji Malick yow la ñuy wax wa Abdoul Moutalib min ba'd marra ila fatati zuhurati المجد والكرم مدني وسليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا المختار في القيد بلغتك وعبد مطلبين من بعد مر إلى فتاتي زهرة ذات المجد خير ورى مجروي وسليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا المختار في الخير فرق يا المختك وعبد موت طالبين من بعد مر إلى فتاتي زهرة ذات المجد خير الأنبياء جل وبدي وسليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القيد مر على على امرأة تدعى بفاتمة تبغي الماما لا لا إله خير الورى مجر وسليا يا إلهي وليا أبدا وعنا محمدنا مختار في القيدان وعبد مطلب من بعد من بعد مر إلى فتاة ظهرة وات المجد والكرم صلى الله عليه وسلم bi loolu passé Abdul Muttalib yàlla dogal na am na fukki doom yu góor ñaanoon ko boroomam xëy benn guddi tëdd guddi ñu ne ko foog nga rendi sa doom hmm? mu bantal ka bant ba dal mooy Abdoulaye xam nga koy Abdoulaye mu hmm. war a jur Rasulullaay problème am ci gàttal ba histoire bi passé ba yàlla dogal ñu jotee Abdoulaye ci boppam hmm. téeméeri gëlëm samaam Seydi Hadji Maalik ne am na beneen xew-xew bu xew xew-xew boobu xew nag laa la bëgg a nettali tey moo waral wa Abdou Moutalibine Mm-hmm. wa abdu mutalibin abdu mutalib min baadu moo waral min baadu du parce que min baadi la waroon wax min baadu gannaaw ba histoire yi marra départ na fan la départ jëm Maodo mu ne ilaa zuhrat dem seeti ndaw zuhra ba mooy kan aminata bintu wahab kookooy kan mu ne zaatil majdi mm-hmm. kay borom taar wal karam yi tey borom tedd nga. sallallahu mbaa yëg na rasulullah ñi ko wër ñëpp dañoo taar woon. dëgg la. zaatil majdi kay borom taar wal karam yi tey borom tedd nga. Maodo ne ba ñuy départ yoon bi topp naa leen xam naa li xew ku ñu romb xam naa ko ku leen romb xam naa ko ku ñu dajali xam naa ko xam nga dox ci yoon ñettey am. Mhm. di nga romb mbaa ñu romb la mbaa nga sama am ne ku ñu xam naa ko. Mhm. ku xam naa ko ku ñu dajali xam naa ko la ñu waxante xam naa ko sama maw da la xew xam naa ko. laaj Maodo. Hmm. ba ñu déparé kon kan la ñu romb mu ne lan Marra. Marra la mraatin tuddaa bi Fatimati. taxil ma mala ilayka wa ayalam. الدعاء بفاتمة مولانا تبغي الممال إليك وديان فاما وسليا يا إلهي وجزيا أبا may anna muhammadan ku sopp yonent bi solo koy ca kaw fa baya an kara haraman ansara nañu dem ci waawan seeti sëñ mbay si man nu soot kooku mooy xalifa bi yarjoo ca karamana nu saara nañu leen tiwaawal seeti sëñ mbay si man la ku mu jaaral ay ñu dem yar joo Maodo jaaral la ma yar لله عونا غير منتصب waaw Maodo Malick doy lu gërëy na lay dayri waaw Maodo Malick jàngu bërëy na Malick lay lay jee dayri Maodo Malick doy lu gërëy na Malick lay lay jee dayri ata sikkër la wooloo donn na mbër Seexu Tijaan ya sikkar nga wóoloo donn na mbër na mbër Seexu Tijaan waay am defe naa boore sëy boore wam ga mooy loolo waaw tabbatul waaw waaw dafa neexul ni yaa fi raw lubu na awla arbaun min xayri fi waay dafa neexul na awla arbaun min xayri fi ci mawdo dabbatul wallaay dafa يغلني يا فرعون ربنا أولى أربع من خير بلا فنخلني يا فرعون بنا هؤلاء أربع من غير فكري مولود دبت ليد فنخلني يا فرعون بنا هؤلاء أربع من غير فكري دبت دبت دبت دبت دبت ilaay dafa neexul ni yaa fi raw lu buna xawla arbaun min xayri ficrihim waaw mamma gay njare nga ca waqe rawan ngom capaal mamma gay njare nga ca waqe rawan ngom capaal waaw mamma gay njare nga ca rawan ngom capaal mamma gay njare nga ca waqe rawan ngom capaal dabbatun waaw moom dafa neexul ni yaa fiir haw lubna awla arbaun min xayri dabata dabata dabatul asi bilaay dafa neexul ni yaa fiir haw lubna awla arbaun min xayri fihrihim marra ala imraatin marra ala imraatin tudaa bi fatimatin tabghi almamaala wa hiya lam turami sallallahu alayhi xam nga loo woy ci commencement ba hmm. wa abdu mutalibin min baadu marra hmm. fii nga ñëwaat ne marra ñaar la booy jàng arut amuloo droit benn baat nga takraar ko te amuloo juróom-ñaari bayit abiyaan ci woy ci woy wala bu la yàlla nattoo ba nga takraar ko te amuloo juróom-ñaari abyaat amuloo droit firee ko même moo tax attention léeg nga dégg ay bihi bihi yu bëri. bihi waaw kay. waaw ci noonu yëpp. Mhm. mbaa yëg nga ne bihi bu ne dafa am lu muy firi. xanaa noon bal. xanaa noon bal xanaa noonu bu ne am na lu muy firi. fii it da nga naan wax Abdou Moutalibine min baadu marra ba histoire ba passé marra départ na kon firi départ lay firi. marra bu njëkk yi départ nga koy firi. deuxième bi mu ne marra. ñoom ñaar la utiliser marra romb nañu alamra atin si benn ndaw ndaw soo xam ne Maodo ne vérifié naa ba xam naa naka lu tudd nu mu tudd Maodo mu ne tudd abi Fatima ñu ngi ko doon wooyee Fatima. kon xam nga looy wax bu njëkk bi da nga naan départ na ñaareel bi nga romb na ku départul doo di dëgg la. mara romb nañu ñoom ñaar alamra atin si benn ndaw ndaw soo xam ne vérifié naa ba xam naa naka lu tudd man Maodo te maa ngi Tiwaawan nan la tudd mu ne tuddaa dan nañ ko wooyee bi fatimatin ci fatima waa lu xew bañ ko rombee mu ne tabaxil ma maa la ah, fatima doon sàkku abdullahi nan ko sa bàyyi ñaata giléem la la jote woon mu ne ko téeméer hmm. te ngaa ma tegal seeneen téeméer nga ñëw maax yow ñu dugg si fii jote waaw akbar amal xaraamu fal ma tuddunahu dëgg la abdullahi ne loolu sama ngor mayu ma ko hmm. téere nañu ba mu demee mu abdullahi ñu may ko Aminata bintu wax bin mu bàyyi ca leer ga mhm. leeru yénente bi wuñeeku dañu wat nag soxna si ne ko yow laa fi romboon nga ma doon sàkku Fatima ne ko waaw man la woon <laughs> boobu dafa am leer gu ma doon gis yow te leer gi newatul ci yow kon soxlaatuma la ilaha illa allah kon marra ala mraatin tudaa bi Fatima mm. tabaxil mamaaya mamaala wa hëyalam turami Abdullahi soxlawul man si di xaaji may nañ lay laaj mhm. lu waral Abdul Mutalib bàyyi Makkatal Mukarrama dem ba Taïf bàyyi ay kër yu bëree bëri dugg benn kër am benn jigéen bu mu fa ciblé muy Aminata bint Wahb bi lu waral loolu muy lan li kay yu sayira li kay yu sayira hashad fan li du ratihi aminatan naqiyat an li kay li kay yu sayiraha sadfan sadfan li durratihi ndax aminatal moomee naqiyat an saayiri li kay ngir moom yu sayiraha na ko mu jël sadfam sadfam ba li durrati ñel wursum ba ma waral ñu tànn ko na aminatal mii naqiyat aji mucc an saaili tuhami ci mboolem tuuma gu ñu tuumal jigéen laka mojisatun ajabat kullal wara na moom yéen ci muhammad laka mojisat wax na la ba tey ne yàlla ñaar la yu ñaar la bind. laka mujizatun ajazat kullal wara. yàlla dafa bind rafetaay bind ñaawaay. lak mu'jizatun ajazat kullal wara waaye booy fasantal kullale bàyyi rafetaay te nga jël ñaawaay laa wax lak mu'jizatun ajazat kullal wara soo ma laajee lu tax may la rafetaay amul kullare waaye ñaawaay yaa am kullare lak mu'jizatun ajazat kullal wara loolu parce que loo rafet rafet boo ne la ba yeewu da ngay ñaaw lak mu'jizatun ajazat kullal wara loo rafet rafet boo amee problème da ngay ñaaw laa wax lak mu'jizatun ajazat kullal wara demel soo mbàkketee da ngay ñaaw laka mujizatuna ajazat kullal wara amul kullëre waaye ñaaw ya am kullëre laka mujizatuna ajazat kullal wara yëg ne lu waa ji ñaaw ñaaw bu delee ba yeewu day gën a ñaaw laka mujizatuna ajazat kullal wara ñaaw ñaaw boo amee problème day gën a ñaaw laa wax laka mujizatuna ajazat kullal wara lu mu ñaaw ñaaw bay màkke di dem day gën a ñaaw di dem laka mujizatuna ajazat kullal wara boo defee amul kullëre waaye ñaaw ya am kullëre laka mujizatuna ajazat xëy xakke nga rafetaay amoon na couleur waaye kenn la ko joxoon laka mujizatun ajazat kulla rafetaay benn couleur la amoon te kenn la ko jox mooy bàyyi Fatima toog roqee toog umu kalsoom laa wax laka mujizatun ajazat kulla tam ko joxoon mooy maamu Xasan Xuseyn maamu Cheikh na Tidiane soppee Seydil Xaaji Maalik yaay ko moom borom Tuuba laka mujizatun ajazat kulla sa waa ji moom gën a àdduna kër la gën a rafet moom Rasulullah laka mujizatun ajazat kulla ba mu amee trois ans kër la gën a rafet moom Rasulullah laka mujizatun ajazat kulla ñoom Mbacke moom amal ay vingt ans lu gën a rafet moom rasul la ka mujizatuna ajazat kulla wara ay Fatima moom amal quarante ans lu gën a rafet ay la ka mujizatun ajazat kulla wara ñoom Mbacke moom amal trois ans lu gën a rafet laa wax la ka mujizatuna ajazat kulla wara kenn mu génnee àdduna bokk mu ree xool ko kenn lu gën a rafet la ka mujizatuna ajazat kulla wara ko liggéey man xew buy dekk ci bàmmeel kenn lu gën a rafet hudun wa yunus min bakaka tajamala kon lu yàlla bindu ñoom Mbacke moo ci dàq laa wa jamali yusufa min diyaayi sanak yusufa li muy taaru taaru taaru gen wàllu taaru gen wàllu taaru yéen dem jël màkk lañ ko jox hodun wa yunusa min baxakata jamala lu waaye rafet rafet boo xoolee jël màkk xeeb ko wa jamali yusufa min diyaayi sanak kon lu waay bind lu yàlla bind lu mën a doon jël màkk ci dax si jikko moo ci dax ci taar ya sayida saadaati hey lii ngay wax dafa am ku ko wax kam ko wax kan la rasul la ko wax ya sayida saadaati lii ngay woy imam abu hanifa moo ko bind ci jël màkk yaa sayida saadaati imaam Abu Hanifa dafa bind wëyu ba mu ko bindee ba noppi def na du ko génne yaa sayida saadaati du ma ko génnee tànk daw ma ci xabru yonent yàlla Muhammad yaa sayida saadaati danaa fa dem toog fa jàng ko ba noppi doo ko génne wëyu yaa sayida saadaati yàlla dogal mu bind wëyu ba wëyu mat yaa sayida saadaati xëy benn bis dem si xabru yonent yàlla Muhammad yaa sayida saadaati toog ci xabru ba war a génne wëyu pour wëy ko yaa sayida saadaati fekk benn góor mu ngi toog à côté te di jàng même woy wi yaa sayyida saadaati Abu Hanifa di déglu góor ga mu jàng commencement ba ba fin yaa sayyida saadaati mu dox ndànk ñëw si ko gi ne ko foo jëlee xasida yaa sayyida saadaati xasida bi man maa ko bind génneegu ko ba tegeegu ko ay Mustafa yaa sayyida saadaati dama ne woon dinaa ñëw si xabru bi jàng ko ba noppi yaa sayyida saadaati ma doog ko biral ñu koy gis doog ko gis yaa sayyida ma jaaxal abu xanifa xasida bii biig ci guddi rasulullah mooma ko sax yaa sayida saadaati dinaa ñëw toog ci xabri bi jàng ko ngir teeroo la ko yow yaa sayida saadaati kon abu xanifa lan la wax rasulullah yaa sayida saadaati abu xanifa nee na yaa sayida saadaati yow mi nga xam ne sangu sang yi laa wax jituka xaasidan jituka dikkal naa la xaasidan di la jublu arju arju maa ngi yaakaar rida yaaka sa ngërëm waxte mi waxte mi maa ngay bi ximaaka abu xanifa wallahi wallahi yàlla yaa xayral xalaaiq yow mi nga xam ne yaay gën yi mi naka man Abu Hanifa kalban am naa xol masuuqan ku la bëgg laa yarumu yarumu sax siwaaka wa bi xaqiqa jaahika inna ni wa bi xaqiqa jaahika maa ngi lay géñ sa daraja ne inna ni laka mugramu wallahu yaalamu annani ataka anta allazi anta allazi anta allazi lawlaaka ma xuliqa amru kalla wala xuliqa du bind benn wara lawlaaka waasil dawaaman man an nuxbati haashimin xoolal alaaji Abdul Aziz ay waay waasil dawaaman 40 ans 6 mois zéro faute la gars yi wax waasil dawaaman waaye dama ne loolu njuumte la waxal na ki fi def giiru dundam ma soppal sama turandoo Dabakh Malick waasil dawaaman alaaji Abdul Aziz Dabakh bàyyi Serigne Maodo si moo dugg ci géew bi di jóobe rasul waasil dawaaman góor ge ne borom be jaago rafet ge nee na waasil na nga amal dawaa man amal goo xam ne day sax dàkk ma daanuk ba ci haasim yi lan ngay amal mun a tëgg tànneef ba ni haasim yi tanaalu lazi soo ko amee alaaji abdu lan la ñuy am mu ne tabri min al fatxi wal yusri da nga am alazi lépp loo xam ne tabri yaa ngi koy sàkku min al fatxi ci ubbeeku wal yusri ak jàpp bihi fastaxil fastaxil na nga yittewoo bii ci rek rasul yaa abdu yaa abdu yaa abdul aziz ma dumta qaadiran yaa ngi dund di am kàttan na nga yittewoo tagg rasul fa matxu rasulillahi min azami zuhri bihi naala xoolal naa la ci la amee bi ci naa la demal Touba góor gu baax ga bàyyi Basiroog Baara maa mi dana seen mbàkke góor gi tawloo Moustapha Caat loo ko la mu am mu ngi ko amee ci tagg rasulaay bi naa la demal euh, demal Njaasaan góor gu baax ga la mu am mu ngi ko amee ci tagg rasulaay bi naa la xoolal góor gu baax ba la mu am mu ngi ko tamee ci tagg ga la mu am amee ci tagg rasulaay demal ba la mu am mu ngi ko amee ci tagg rasulaay maam da baax ne bi naa la la kon bii ci tagg rasulaay naa la ca la amee maa naa la rijaalu maraatiban lépp loo xam ne naa la am na ko rijaalu lay góoru yàlla yi minal malikil allaami maraatiban ci ay martaba yoo xam ne minal malikil allaami ñu jógee ko ci jalla jalla wa jalla anil hasri xoolal martaba yoo xam ne ñu ngi jógee ko ci jalla jalla wa azza kamaalu fa matu rasulillahi alaaji ab fa matu rasulillahi tagg yéen ci yàlla Muhammad ahmad uddati ahmad kay ko jox ahmad uddati mooy sama dëgg mahabbatuhu mahabbatuhu bëgg gi ma bëgg ñol ma fil qalbi sama biir xol kan naxsi mel ni birig fi saxri dootul dañ aya man baal xayra yow bal waay yu lay waxal aya man baal xayra alaaji abdu ay wax ne yow bal waay yu man baal xayra alaaji abdu bàyyi Maodo si mooy wax ne yaa may bal xayraat yow bal waay yu yaa sayyidal wara yow mi nga xam ne sangu mi defi wa qatima nazmil yow mi nga xam ne yaa mutri yonent yi zawil qadri bu ëllëgee mal xeex fa nahnu yëgal na man alaaji abdu indal baabi yaa sayyidal wara bi jaahikum narju shafaatan fil asri sayyidil haaji ma Malik عين العقيقة والشريعة إنه يهدي المريد لخالص الأديان ميسام المقام وعمدة العلماء بل تاج العلا وكما طلى القمران عين الحقيقة عين الحقيقة على يمن سوري ويبايم عين الحقيقة لا عين الحقيقة بو بوغي خم سيد الحاج ماك نينا موي عين الحقيقة موي جيمو حقيقة والشريعة موي جيمو شريعة إنه يهدي المريد دان جوبال طالب لخالص الأديان دان جي دينا جو سل saamil maqaami moom mooy kaw ji cër wa umdatal ulamaa yi moom mooy kennooy borom xam bal li fi ne taajul ula mooy ndàmbaay wa kama talal qamar aani kawe borom xam mu ngi mel ni wéer ak bi huwa zillu fadlin moom mooy këru ngëneel waafirin li musallalin lam yaxsa saalikuha min al xayaraani maam Maodo wax mul maridi posal la ci ci bañ wa huwa saadul muridihi waaye texe la ci ci nangu kam ñaata lil ilahil hada ñaata jaam la jubal teg na si yoon siraat min al abdaani ñaata jaam la jël teg na si yoon siraat kookoy Zaaka bnu Ousmane al karim soo ko xamul ne ne kii Zaaka bnu Ousmane mooy doomu Ousmane cheikhul masaïxi ku bañ a ku nangu mooy cheikhul masaïxi man bal irfani ku bañ a ku nangu mooy man bal irfani Zaaka bnu Ousmane al karim al murtada kii mooy doomu Ousmane da nga xam ne mooy karim mooy ku tedd ka al murtada mooy ku ñu gërëm ka cheikhul haaji Malik cheikhul haaji Malik mooy cheikhul masaïxi Zaaka bnu Ousmane al karim al murtada Mortada mooy ku tedd ka ku shaaiqi man baul irfaani man baul irfaani borom xam-xam yëpp ci moom la ñu noon mam Maodo yaay sunu njiit bawoo fi nun lu tax nu tiit déedéet nekk doo deñ di nu niit doo jug fi nun subaak marax Seydil Xaaji Malik jàppa taxoon lex yay lerax su taxoon jëbay melax mii noon na de jaay bu sax cërëm ya dootunu sënax Seydil Xaaji Malik la Maodo def ca Casamance wëral village yi Casamance daa xam ni maam Maodo du maas tiim na ñépp ak baatinam Sédhiou Ziguinchor ba aussi Kaptem Mberek Pakaaw aussi Njaambon Kafountine Conkosine Maodo la ñuy dégluy waxam ku sopp Seydi El Hadji Malick maam Maodo yaay sunu njiit bawoo fi nun lu tax nu tiit foo nekk doo diñ dunu niit doo jug fi nun subaang marax ñu ni Maodo mu ni mu jug dundam du lekk yàpp Maodo du naan soow ñu ni ko lu tax mu ni araamul de waaye gàtt bi wala jur gi laa xamul mus naa ruur toolub jàmbur àq ja di ma ca topp ma faf ko daw ñu ni Maodo mu ni bu musaana bay njarnde wala jagsaaw wala gosaas danaan gerte gi ngeen ciy jële bu leen ko bàcc dama bëgg ngeen witt ko ak seeni loxo moo gën a dal sama xel ngeen koy bàcc ndax bu ngeen ko bàccee benn bantu jóge ci ngooñ mi dugg ci gerte gi ñu peesewaale ko jaay ko poids bi bant bi di def man Maodo xajoowuma ko ci bàmmeel ñu ni Seydil Xaaji Maalik mu ni yonent bi mën na ma gën a gudd tànk mën na ma gën a yaatule waaye dina ko roy ba bu teggee man Maodo ma teg ko fa ñu ni Seydil Xaaji Malik kii ma dëxru jaada bi malikin wa ka malikin ka dëxri lil malikin ñu ni Seydil Xaaji Malik mu ni yow mi yor tariixa bi di ko wirde nin la ko waxe bis booy faatu doo sukkuraat dangay nelaw ba xëy dem moo tax ndeysaan dama toog di wasifa benn waay ñëw fëgg ma ca Allemagne ni ma waaw li ngay def xaraam na ma ni ko lu tax mu ni ma lii day biddaa la baaxul ma ni ko waaw dëgg la de waaye nag kaay ma xamal la li may def ci sama kurus gi mooy astaghfirullah al azim alladi laa illa huwa al xayul loolu la ci jàng mu ni ma ak lan ma ni ko allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima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 muhammadun rasulullahi ma ne ko lii dalaay wax ci kurus gi bu dee biddaa nag ñaanal ma ma dem te baag maa sama bidda ñu ni seydil xaaji maalik mu ni jàpp ci bis boo duggee ci bàmmeel bula la malaayika yi di laaj seyduna muhammad mo doy tontul boppam moo tax ndey ndeysaan dama dem Casamance waaja naan ma li ngay wax ci taalibe cheikh yi waxi set xam nga tiijaan yi dan naan ay set lañu mu ni ma tax ma ni ko set moom ku ko génne ci sa dund gi dara dootu ci desati mu ni ma lu tax ma ni ko asamaan si la ñaata la mu ni ma set ma ni ko suuf si nga taxaw ñaata la mu ni ma set ma ni ko jour ci biir semaine bi ñaata la mu ni ma set ma ni ko gis nga booy tawaaf kaaba ga ñaata yoon nga koy wër mu ni ma set fois ma ni ko booy sànni jamra ñaata xeer ngay jël mu ni ma set ma ni ko gis nga yeneen bi ñaata doom la am mu ma set ma ni ko faatixa ñaata aaya la mu ma set ma ni ko gis nga kilifa yépp siifuru set la ñuy yéeg siifuru set la ñuy wàcc sëriñ bamba mbakke baayu sëriñ murtala baayu sëriñ saaliw baayu sëriñ fàllu mbakke 1927 la génn àdduna ma ni ko seydil xaaji malik la 27 juin sëriñ babacar si 57 maam Abdou jël 57 wàcc 97 Serigne Mansour si borom daara yi jël 97 dund 87 ans ma ni ko suñu maam Serigne Saliou Mbacke 2007 la génn àdduna waaye ma yëgal la Serigne Sidil Muxtaar suñu maam ji gis nga mooy sëcceem xalifa Serigne Baara di sëcceem xalifa Serigne Touba waaye defar setu sooroor biir Touba toog set. ans sept mois sept jours mu ni ma dëgg la ma ni ko téléphone yi xam na ni sax bu nu deful sept du nu jàll benn bi def 77 bi ci des xam ni bu deful sept du jàll mu def 76 bi ci des xam ni bu deful sept du jàll mu def 70 moo tax ndeysaan dama jóge Europe di ñëw waa ji ni ma fooy wàcc ma ni ko ci aéroport setti ya mu ni ma lu tax ma ni ko Ablaye Wade da nga ko commencé le sept septième mois Macky Sall inauguré ko le 7 décembre mu ni ma dëgg la ma ni ko gis nga kon àddina lépp set la yaa rabbi salli alal ba sayyidina waqbal shafaatahu fiina wala mudami maa Seydi El Hadji Malick yéen ci yàlla Muhammad maa ngi ci juddu gi. maa ngi bëgg a wax juddu ga. kañ la juddu. fan la juddoo naka la ganee àdduna. buñ la laajee kañ la kañ la aw dat la. buñ la laajee fan la fan la aw lii la. buñ la laajee naka la naka la aw defin la. fan la ganee àdduna makkatal mukarama. déggal la ganee àdduna la douze. ci weeru gàmm. naka la ganee àdduna sama am ne naa la ko nettali. Hmm. ganewul àdduna guddi attention ganewul àdduna bëccëg fajar la gane àdduna fajar nag dafa am ñu ne bokkul ci guddi am ñu ne bokkul ci bëccëg kenn ku nekk nag indi nga dalil ñi wax ne bokkul ci guddi ñi wax ne ci guddi la bokk fañ ko teg dañ na julli guddi yëpp dañ koy biral soo julli tamit ci kaw ngay jàng sooy julli gee ci kaw ngay jàng ñaar rakk suba ci kaw ngay jàng kon ci guddi la bokk xel ma naka nangu am ñu ne déedéet bokkul ci guddi gi waaye ci bëccëg la bokk ndax bu dee weeru koor la sooy booy xëdd ba dégg noddukat bi ne asalaatu xayru mina mi ku lekk ci amoo koor kon ci bëccëg la bokk kon kenn ku ne am nga dalil boo indi xel ma nakaa nangu yàlla ne comme ñii ne dañ ne si guddi la bokk ñii ne si bëccëg la bokk ñaa indi gën ji mbindéef mu gën ñëpp mu gën at loo heure bi ngir lan bëccëg du wax ne maa gën guddi gi wala guddi ne maa gën bëccëg moo tax mu gën a at na naka la gane àdduna doomu aadama bu nekkee si biir juróom bu dee góor la day wan yaay ji gannaaw su dee jigéen la day jàkkaarloog yaay ji ku mën a doon ku mën a doon it bopp bi kaw lay féete tànk yi féete suuf su yàlla dogalee mu war a génn àdduna dañuy changer position bi bopp bi mooy ëlbati ko féete suuf tànk yi féete kaw loola war a matuka waaye njol màkk sa soppe ba na mu nekkee woon si biir waajuram noonu la gane àdduna sallallahu alayhi wa sallam la gane àdduna fajoor la douze la gane àdduna wax naa la barke biig ne siifuru douze loo si ñaan yàlla yàlla nangul la ko la ca dajee bëri soo bindee laa ilaha illallah muhammadu rasulullah boo ko compté douze la Ababacar Saddiq soo ko bindee compté douze la lay jox Omar ibnul Xattaab soo ko bindee compté douze la Seydina Ali karramallahu wajhahu soo ko bindee compté douze la Cheikh Ahmed Tidiane Chérif soo ko bindee compté douze la Cheikh Seydil Hadji Malick Sy soo ko bindee compté douze la Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke soo ko bindee compte douze la weer yi ci at mi douze la heure yi ci bëccëg gi douze la heure yi ci ngoon gi douze la jawharatul kamal bii ñuy tiitaroo douze la talifule bii xale jigéen yi xoolee douze per lay doon su ëppee doo gis su manqué doo gis maa ngi lay bàyyiloo xel ne tubaab la ñuy jaay. loolu dëgg la. wala am na huitième déedéet rek la ñuy jaay. njol màkka nag le douze boobu ci la gën a àdduna fajar. sallallahu alayhi wa sallam nee na ba ma yëgee ne maa ngi toll ci matu dafa am njannaaw lu ma feeñ mhm. njannaaw loo xam ne xàmmeewu ma ko njannaaw mooy luy naaw tey sax la douze la waaw tey sax ci tegtal fii ci tegtal le <laughs> ah, douze le douze ñu dem Aminata nee na ba ma ne maa ngi toll ci matu uh-huh. dafa am njannaaw lu ma feeñu talal laafu ndeyjoor bi teg ko sama jëbi di ko diri ba sama cot tànk yi wóor ma ñaari yoon talal laafu càmmoñ bi teg ko sama ndong li di ko diri ba sama cotu ndëggu li uh-huh. ba mu defee loo moo njannaaw li dem yoonam yëgatuma métit gisuma doom te gisutuma li ma ëmboon ma jaaxle wóolu benn xale ne ko demal ma ci Kaaba ga sa maam Abdul Mutalib ba nga fa mooy ki ma la waxoon sàng di Shaybatul Hamd ne ko na ñëw gaaw am na lu xew Abdul Mutalib ba muy ñëw mu ngi indi walla jaasi arab daanuñu dox te armé moo tax sa góor gi bi sax doon wax ne góor bu bañee daw mbaa mu bañee yuuxu buy dox ne armé wu dëgg la arab daanuñu dox te armé wuñu Abdul Mutalib ba muy ñëw mu ngi indi walla jaasi mu ñëw am na sa nettali ko mbir mi damaa tolloon ci matu am na lu ma feeñoo def na nangam ak nangam ba mu demee yëgatuma métit gisuma doom te gisuma li may ëmboon moo ma jaaxal abdu matur ne mboqit jaasi ne ko wóor na ma dangaa jur xale bi sàkkal ko pexe di nga ko génnee léegi wala ma tàqal léegi sa bopp sa baat abdomatil mi ma téye jaasi bi ci la am benn jëmb ju ma feeñu jëmb joo xam ne xàmmee ma ko si mbedd Makka ma ko ram téye sama loxo bi jaasi bi nekk wañ ko ba teg ko sama dëgg naaw gi nekk de boobu bàyyi Fatima doog roqeet ak Umu Kalsoom maamu Xasana Xuseenu maamu Cheikh na Tijaani soppee Seydil Haaji Malik yaakaar ma borom Tuubaa gane ne àdduna bu yóbbu nañ ko àjjana fa lañ ko doon defaree sallallahu alayhi Aminata nee na fa ma taxaw tiit ci laa gis benn délégation bu am solo. ñu nga jël sang ba la ma ko si benn sarbet ñu nga tusgal pëcc lay weexal nga weex tàll la la seen ñuul nga ñuul kuk mu am doom ba pat boo xam ne xaw ma fu mu jógee ko. ne ñu indil ma ko. ki ma njëkk a xàmmee dafa ñëw ne ma ah, soxna Aminata xàmmee nga ma ma ne ko déedéet mu ne man maay Maria. man maa ne woon yaa yoo Isa dama ñëw ngir ndokkeel la ñëw ngir sargal la sa doom ji suñu borom may na ma ko may nekk sama borom kër ëllëg sa àjjana kon dama lay ndokkeel ngir sargal la ki ma àndal mooy Asiyatu moo ne woon jabaru Firawna firawna lu yàlla bind moo si gën a kàccoor ku de woon ba naan ana rabbukumul aala waaye lu mu nekk kàccoor nekk kàccoor soxnaam si ëllëg àjjana la jëm non seulement soxna yonent yàlla Muhammad lay bokk kon moom itam dafa ñëw ngir la dafa ñëw ngir sargal la mhm. kon àjjanaa ngi lay ndokkeel ñu ngi lay sargal mhm. safaraa ngi lay ndokkeel mu ngi lay sargal mhm. asamaan la nga lay ndokkeel mu ngi lay sargal suuf ndokkeel na la sargal nañ la ndokkeel nañ la ndokkeel nañ la ndokkeel nañu la sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu lu neex du doy Serigne Abdou yaakaar naa ñu ngi jëm ci guddi gu mag àddina bi yépp nag foo dem ñu ngi màggal juddug Seydina Muhammad sallallahu alayhi boo ne gàmmu sa xel day dem ci Seex Seydil Haaji Malick burdu bii ñuy def di ko def fukki fan guddi gu ñot nga dégg jàkka yi mawlaaya salli wasallim daa iman abadan di julli rek ci yonent bi moo ne alaaji bindoon na ay téere de mënoon na koo jël waaye mu dem honnêteté intellectuelle la utiliser moom alaaji Malick jël burdu boo xamante ni imam Bushayri moo ko def ci rasulullahi ba léegi àddina bi foo dem ñu ngi burdu loolu nag ki nu ko may mooy Cheikh Seydil Hadji Malick tey jii sax boo demee Arabie Saoudite daawuñu gàmm waaye yaa trois ans ci ginnaaw commencé nañu tabaarakallahu di màggal juddug Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yeneen bi ku ko réere rek yaakadul bàyyi xel waaye ku ko xam dëgg di ko bàyyi xel moo tax seen émission bi nga xamante ni spécial gàmm la seen télé bu mag bii di Tektal TV di leen ko indil ci spécial gàmmu yaakaar naa ni képp ku doon seetaan bëgg nga yaakaar naa ni ni ko waxee lu neex du doy yan kàddu ngay tàggatoo. tabaarakallahu xanaa di ñaan suñu boroom rek yàlla defal leen jàmm waa Tektal TV. Mm-hmm. te yokk ko ba àdduna wërngal képp xam ko. si barke weer bu tedd mhm. bi si barke ki nga xam ne dafa sakkan le ku sakkan ki waaw ku sakkan ki mooy sallallahu moom maa ngi lay bàyyiloo xel ne loo ko dugal rek mhm. say mbir dana sakkan waaw loolu dëgg la sallallahu alayhi wa sallam billaahi kon ku bëgg say mbir sakkan waaw jaaral wax nga ko sànq waxasil a madaxan ndox bati hachimin tanaalu lazi tabaxi min al fatxi wal yusri sallallahu alayhi wa sallam bëgg ubbeeku ak jàppandal day tagg nga baal ma ndax xam nga àddina bi ñëppay gàmm dafa am la cheikhul xaddim wax mhm. dama bëgg rek nga ñëwal ma ci tuuti ma riimal la ko wala riimal ma dégg yaa rasulallahi ku ko sopp defal ni mam bamba nee na sëriñ na yaa rasulallahi huwa nabiyu nga lu mu wax maam xaadimu rasul ne kii ngay wax huwa moom nabiyu mooy ki yàlla solo war rasulu kii mooy ndawal yàlla bi wal qalilu mooy xaritu yàlla bi wa huwa al habibu mooy soppe yàlla bi wal imaamu mooy njiit la wa dalilu mooy référence ba sëriñ bamba ne ku ko sopp defal ni ñu màggal ko madalana al islaama wal kufru maa wal kufra maa wa binnasihatin li kulli samaa ah. yaquudu bi zaahiri wal baatini man mm-hmm. ataahu lillahi fi kulli zaman lam yabdu antal karim hmm. maam xaadima rasul dafa mel ni da doon wër leeru yenente bi sallallahu parce que baatu anta ku ko arab wax rek mu ngi jàkkaarloog yow anta waaw xam nga lu mu mel ci wëyi sëriñ Mansour Ba hmm. am ñaari ismu yu mu utilisé njëkk naa wax huwa hmm. dem ba ci biir ne haza rasulullah waaw waaw a jàkkaarloog moom a tax antal karimu antal karimu anal dem bam yàgg mu mel ne dafa séen leer goo xam ne moo gën a leer leeru torsam tors bu mu yoroon mel ne dana yor tors bi di nit ci biir bi di xool benn leer muy leer yonent yàlla Muhammad mm-hmm. dem ba jàkkaarloog leer goo xam ne moo a leer leer ak torsam mu xam ne waa ji ni seeta gi sallallahu alayhi wa sallam mu joxoñ ko baaraam bu tedd ba ne ko ant ci dëgg-dëgg alkarimu yaay ku tedd ki mm-hmm. ana man xaadimu rasul alqadimu mm-hmm. bis ni ki tey fas naa sumee ko takk sama digg di la liggéeyal ba ilaa yóbbi sallallahu alayhi dahrul udi mu fi kasanaay mag ñi lu ne wax nañ ko yéen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce xam nañ ne mooy daj dëpp ga mooy daj dëpp xam nañ ne mooy ko sakkan lëkki mhm. xam nañ ne mbir mi yëpp ci moom lay ballee xam nañ ne ñëpp ci moom la ñuy rootee mhm. xam nañ ne mooy waaja te mooy mbir ma kon yàlla nañu yàlla may ñu yegg ak jàmm ci gàmm yàlla defal ñu jàmm mhm. yàlla defal ñu sutura Sénégal gii yàlla sotti fi naataange def fi juboo ak dal ñu ngi waajal ay élection yàlla def si jàmm def si sutura bi jaahi Seydina Muhammad salaay salaam nañ raxasat xol yi mhm. gàmmu du dara du defaraat jikko yi parce que bu ñu fay waxtaanee jaar-jaaru yeneen bi lay doon ak ay jikkoom mhm. bu mag ñi di dajale nag mhm. di waxtaanee ay jaar-jaaram ak ay jikkoom bëgg ñun ñu roy ci la waaye du waxtaan rek na gàmm ga neex na te lañ waxtaanee ca gàmm ga xamuloo ca dara amul njëriñ wa laysa nafun ala hubbin bila amalin wa taabi an sunnatal muxtaari tatanimi sama am ne amul benn njëriñ bu ñu wéyee yénent bi nga daanu mbaa ñu waxtaanee ko nga daanu te doo jéem a roy sunnaam da ngay jéem a roy sunna yénent bi mooy nga teg sa tànk si sunna di def lu baax te di ko dox te di ko wax te di jokkale ay mbokk te fexe nag ñaar ñu jubawul nga fexe ba jubale leen waaye kon bul yàq yàlla na yàlla defal ñu jàmm yàlla defal ñu dégg ak topp bi jaay Seydina Muhammad ngi nuyu nag Cheikh Ahmed Tidiane mi nga xam ne moom la yàlla jaarale ñu ñëw fii muy Cheikh Talib mm-hmm. fa tabarakallahu di suñu soppe bopp suñu kilifa di suñu mag mm-hmm. muy Hadji Ousmane Ndiaye nga xam moom la ko yàlla jaarale ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm di nuyu suñu sëriñ yépp nag salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf sëriñ Abdoul Aziz Mbeng yaakaar naa ni mbokk yi doon déglu yépp bëgg nañu seen xol feesaat na dell ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mu ko waxee rek cheikhul xaaji malik nee na ala azimu laylal wiladati xisbatan isa lam yakun naxwal araami woote naa kaay leen ñu gàmm waaye bu mu jëng mukk jëm ci lu xaraam kon képp koo xamante ne ni jóge nga fii gàmmoo foo mën a nekk ci àddina bi fexeel ba lépp loo fa def mu doon lu xaraam yaa boole sa bopp ci yonent bi waaye yonent bi moom boole wala ci boppam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lenn rek la jàngale bi mu ñëwee innama bu'istu li utam mi utammima makaarimal axlaaq jikko yu rafet yi laa ñëw ngir mottali kon dëgg la jikko yu rafet amoon na fi kon li nga xamante ni nii fekk nañ ko fi muy jikko yu rafet muy àndandoo Sénégal doon benn bokk ndey bokk baay ngal la mbokk yi nañ leen dimbali sunu bopp léegi léeg ma dégg ñu naan a ah, fii bal du fi tàkk ndax mag ñi dañ fee ñaan dëgg la mag ñi ñaan nañ fi waaye demal baxdaat demal iraq demal dëkk yu mag yi nga xam ne ay yeneent lañ fa suul bal di fa tàkk dama ni suñu réew mi ñoo ko bokk nañu àndandoo bokk nda yéenante jàmm bi ci des nag mooy di sàngalante suñu bopp sutura réew mi toll na foo xam ne kenn xamul whatsapp li muy yàq ci àddina bi kenn xamul facebook li muy yàq ci àddina bi léegi nag li xew mooy tabaarakallahu rey nit wala tabaarakallahu euh, war ngaa am boroom kër nga jël léegi taala taale moo xew taale tabaarakallahu taale ku yebu rek xam ni nag taale xew ci réew mi te loolu yëpp jikko yi nag moo yàqu kon mbokk yi nañu bàyyi xel ci jikko yi nga xam ni valeurs yi nu sunu maam yi yare woon ndax itam bu jëkkoon nijaay day yar professeur day yar ñëpp ay yar waaye léegi dem na ba professeur ñemeetu la yar dem nañ ba nijaay ñemeetu la yar dem nañ ba mbedd mi ñemeetu la yar jëkkër sax ñemeetu la yar jëkkër jooy dem bay taal kay mënatu laa yar kon mbokk yi tabaarakallahu yooyu ay jikko la yoo xam ne ñu delluwaat suñu xel xam ne dañu am ay valeur ñi nga xam ne ñoo dëkk ci réew mi te bokk tariixa yi tamit ñu xam ni diine la ñu bokk yonent bi kenn la seyduna muhammad kenn la waaye yëgal ne lislaam bi kenn la waaye bu fekkee ni dëgg dëgg neexul ba neexul sama sëriñ rek ay waaja ku dul sama sëriñ doo waaja foo ko teg munoo fexe ba xolal ñii dem Touba jouru màggal xoola toogal ci tali bi karal junniy oto dina la romb dem Touba sa xol kenn mënu ci dara ñii dem Tiwaawan mënoo ci dara duntee ñu gëm Seydil Hadji Malick bëgg ko sopp ci njàngule yonent bi ñi gëm Seydina Limaamu mënoo fexe ba dun wuyoo laay ñi nga xam ni seex na Seyd Saadul Abi la ñu gëm mënoo fexe ba tabaarakallaahu duñu ko sopp kon xam nga mbir mi lan la yàllaa fi ne nañu àndandoo bëgg yàlla bëgg gu wér te xam ni tabaarakallahu ñun ñëpp ay jaam lañ sëriñ si tamit ñu jàppe leen ay nit jàppe leen tamit ay doomu aadama ndax yonent bi li mu gën a bëgg ci àddinaam mooy yàlla jaam gi mu koy woowee kon boo fi jëlee sa sëriñ ëppale ko yonent bi jël sa sëriñ ëppale ko saxaaba yi moo tax na Tijaan dañ ko laaj ni ko yaag saxaaba yi nu ngeen mel mu ni saxaaba yi ñu ngi mel ni picc ca kaw ma mel ni sànq lañ di naaw ci suuf kon képp ku fi am kilifa def ko nit waaye def ko nit ku baax def ko nit ku sell te ñu bëñ a jël àqu yàlla di ko jox jaam ñi mbokk yi seen émission tegtal lii la leen indiloo tegtal TV ci tegtal tabaarakallahu seen mbokk seen xarit Abdoul Aziz Mbeng Abdoul Aziz Mbay alxaaji Demba Caam di leen jox dig daje beneen yoon salaamaaleykum wa rahmatullah